dañuy sant gouvernement bu baax a baax di reconnaître li nga wax mooy jamono ju metti ji euh, mu nekk nag loo xamante ni wax fa dëgg yàlla gouvernement bu bees bi dañ ko hérité dañ ko euh, dañ ko fi fekk mais seen taxawaay nekk luñ fi fekk noonu ñu mën ko transformer te ñu am ci xel mu rafet mais aussi ñu am ci ñu gis si euh, ay jéego yoo xamante ni ay initiative yu dem ci sens boobu ndaxte wax nga ko sànq lu jiitu peut-être li ministre bi def euh, pour le transport yaakaar naa am na jéego yoo xamante ne buñ ko gisee buñ ko daan wax mu nekkoon ay kàddu euh, bañ yàlla def yàlla indi leen ci bopp réew mi euh, kon bokk buñ koy gis ñu koy jëfee lu mel noonu soulagement lay nekk wala bokk njort bu rafet lay doon te ñu continuer liggéey bi wax fa gis nañu ni liñ doon wax koy def buñ ci limee yenn ponc rek yu yu yu gouvernement bu bi di mu réduire en tout cas le train de vie de l'État notamment le nombre de ministres c'est-à-dire wañi taayu équipe bi te wax fa dëgg yàlla bi ñëwee teg nañu un gouvernement de 25 cinq ministres donc liñ ko doon liñ doon wax jëfee nañ ko euh, donc condensé nañu vraiment euh, li nga xamante ne mooy équipe bi ce qui est très apprécié mais bi ci jiitu surtout mooy le président de la république démissionné na poste politique am te loolu tamit lu ñu rafetlu la mu nekk une première fois en tout cas dans l'histoire politique euh, ñuy teg ay jéego tamit wax nga ko sànq. Euh, jamono ji metti na waaye comprendre nañ ko bu baax te wax fa dëgg yàlla am na loo xamante ni bu amee nga ñëw nag di door a toog day metti euh, ndor ndorteel ndor waaw waaw ndorteel bi dafa rafet ndaxte buñ ko waxee rek c'est bon il est important ñu insister ci loolu parce que nit aussi bu fekkee day commencer di def lu baax il faut que ñu ci ñu ciy wax buñ koy dégg

mais li gënoon difficile moy l'étude a été faite tëju nañu euh, réfléchir consulter et loolu moom ci gëna neex la partie inclusive moy tebo rek wàññi da nga dem tok toute la chaîne tout le circuit processus bi yëpp nga waxtaan ak ñoom bala ngay def un premier pas te ñoom ñu aussi bi communication bi dafa leer moy ko tàmbali nañu li nañ ko tegagum ci loxo sénégalais yi ñu continuer nak liggéey bi parce que bonne vie de la chair aussi en tout cas vie euh, en tout cas coût de la vie mu cher euh, dëgg la demal ci cause principale bi buñu xor rek ci wàññi wàññi mun nañ wax ni c'est juste atténuer les conséquences mais pas attaquer la cause principale parce que buñ né vide en tout cas coût bu cher day fekk yow nga mënal sa bop notamment une économie endogène ngay produire li nga xamanteni yow yaa koy consommer mais bu fekkee li ngay consommer dang koy jënd bitim rew yaakaar di wàññi sax day poser problème kon boog vraiment ñu leen di féliciter bu baax. jéego yi daal pour yow euh, c'est rassurant. très rassurant parce que wax fa dëgg yàlla euh, am na loo xamante ni buñ ko gisee suñu xel day daal ndaxte boo xoolee gouvernement bi ah man de amna na si ñoo dañ leen nommer man may def recherche di xool ñan ñooy ñan mais après da ngay ngay am une belle surprise te sa ngay xam ni profil yi ñu teg ce sont des technocrates ce sont des travailleurs ce ne sont pas des politiciens. mais des gens qui ont fait leur preuve, soit dans leur entreprise, que ce soit dans les multinationales, ou dans, en tout cas dans le secteur public, ou bien dans leur propre business, tout simplement. C'est ce que nous ko gis Nous avons ko les bons profils nous avons euh, la connaissance l'expérience qu'il faut nous mettre au profit tout simplement donc de la nation kon koy Eh, di sant gouvernement bi tey lancé boobu ñu nekk ñun ñëpp ñu war ci ànd ak ñoom